xëyti laa boo jigam bëggooneen foo tollu buubal foo tollu tuubal foo tollu laabal mbaa nga tilim neen wataane yàlla mbaa gaay yàlla ak tudd yàlla daa fegun neen tudd yu bon ya ak gaay yu bon ya ak jëf yu bon ya dana ëtëñ neen ku fiy defuñ neen mbaa muy waxuñ yow bul waxuñ neen te bul defuñ neen diw gaa ngi laalal diw gaa ngi niinal te ku ci niinul asal dangay neen ku jàpp wii way te amee ak way daldi di am way ku wedd lii neen bul xoole ak neen bul geeso ak neen te bul doxul neen nangay moy neen fayal sa bor yi tuubal sama yi fartay yii ndax nga fay neen ku xame ay bor daldi xame lor te ame ay lor moo gën a bon neen te bu la kenn seen mukkati ngay béen yow mbaate ngay seen looloo di ak neen réewande baaxul xamadi baaxul te fakk baaxul yàlla bay neen ba defa def nit bay defaru nit bay tegalu nit bor ak lor ak neen adduna day wéy sa dund day wéy yowit dangay wéy bàyyil yoxoy neen kuy def yoxoy neen du am lul neen njër ku jiw neen du gis mu may neen tuubal yoxey neen tuubal waxey neen tuubal jëfi neen ngir bëggul ak neen ku tuubul neen du am lu dul neen du yor lu dul neen te kenn bëggul neen sëñ bi yaa ngi mun dong yaa ngi mun sopp yaa ngi fegal nu ak neen yaa mën a fekk neen yaa bàyyi ak neen yaa sori ak neen soril nu ak neen doleeti nuy may fegal nu ay moy fegal nu ay ay aw ak i neen samay giréy na sa tab giréy na sa gem giréy na yow doo nit ak neen yaa weesu jeexal yaa weesu xaajal kenn du la tàllal deloo yoxoy neen ku ne na seesal del te compal tuul te giijal ba sori ak neen te noo ngi tàllal ngir bëgg a feesal boole nu feesal daxal nu ak neen yow yàlla yaa moom ku nekk yaa moom lu nekk yaa moom ku nekk yaa moom jëf ak ka koy jëf ak xel ma koy jëf ak cër ya koy jëf yii yëpp yaa moom loo sante kenn loo yoole kenn loo tagge kenn yow lépp yaa moom ku la defal lëf boo joxulit lëf kenn du la wax lëf ngir lépp yaa moom ku defulit lëf nga jox kanam lëf deesu la war lëf nga lépp yaa moom yaa sakk yaa moom yaa bind yaa moom yaa boole kay moom moomal la muy moom doyul mu wëllis ku nekk wëllis ku nekk wëllis ku nekk yaa moom yow yàlla may nu sëriñ bi may nu yeneen bi may nu sa bopp yaa moom sa jaamu may nu sa cant may nu saw tagg may nu man nga te yaa moom xiiwal gi may nu barke bi may nu wërsëg bi may nu muy topp yaa moom sëriñ bi jàppal way wii lee sellal te fab kon a jël ngoogu yaa moom wanaata ndimmal bëgg sa ndimmal sakku sa ndimmal seenu sa ndimmal bëgguma ndimmal lu dul sa ndimmal lu dul sa ndimmal loola du ndimmal dimbali ngay gaay bayoo yëlay gaay di dimbalay gaay may noota ndimmal yaa ami ndimmal yaa bari ndimmal boo jeela ndimmal bari ni ndimmal may loxooti te geesu nooti te wallu nooti ànd ak ndimmal te jublu nooti fal yokku nooti la biiri nooti bi kenn ndimmal xëy noo ci ndimmal dëgal sunuy xol bindal sunuy xol waare nu ndimmal wonoo ci ndimmal yóbboonu ndimmal ku amu ndimmal day maye ndimmal xol yëpp nay nooy kër yëpp nay nooy du sant bay jooy li lee di ndimmal bu la karante sunu déggante nanuy gisante di gis sa ndimmal lu yàgg-yàgg na nga mu bëgg mu di la bëgg jaam sa ndimmal may nu sa ndimmal mu may la ndimmal ngay sunu ndimmal mu di sa ndimmal ma sant laati te tagg laati ngir may nga maati bégal nga maati yokk nga maati dolli nga maati yërëm nga maati sarax nga maati yow yaa di kenn koo xam ni kenn déggu ko fenn gisu ko fenn donu la kenn kenn du la donn yàlla du donn deesu ko donn sedd nga ab xol seral nga yit xol te dal nga am xel dawal nga yit xel dakul nga nu way faw aku may ak képp kuy may jox nga nu ndimmal ku réere am koom yow daala di am koom xam laa di am koom xam laa di am koom ku la amul moom réere na am koom ku la amul moom ñàkk na am koom te ku la toppul xelam mu gudd pour gudd am xel day topp sangam képp ko am gëm te yaa di sangam ku nangu boppam ku gàntu boppam nit ki yaraw nga rafet nga set nga jiitu nga far nga lu kenn dul far kenn du raas ndare ko lay raas yal na nu lay raas yal na nu lay far ngir yàlla bamba ak yonenam ba ak kuréelam ba ak ku ñu may gëm na nga nu may ndam te may omar ndam may sunu njoñ ndam te may ñoñam ndam na nga nu may ndam te may omar ndam may sunu njoñ ndam te may ñoñam ndam may nu ëllëg ndam damay nu tey ndam daqal nu mboolem loraaki lan ndam mayal sunuy ndey yërmande juy wéy te boole ceeg pay guy wéy gu dul yem ku dul sunuy baay na ngee sunuy baay te bu sunuy baay ñeekan fa ñuy jëm mayal sëriñ pir caag jeney kër ak ngeen ji waa kër ñuy dab ba neexam te may fayit nag ma jaxateeg jag bu yéemu ak njëg ci gépp wallam may nit ñuy ñaar fukki yëfal yaar yu dee teg waar yow ngeen ji yaaram tere gudul dañ yeween gudul dañ gërëm lu dul dañ ak tere kiy ñam ak jàmm ku wér ak sori luy lor xaw ak sori bor ak lu ñu naacam ak gudd aw fan ak mucc ciy kan defal mu niinu teyit nu loo am omar na barkeel mayin ma barkeel nu bokk barkeel jiitu sunuy cam may nun nu mat baay mboolem sunuy baay naa gën samay baay mu gëni baayam ku nekk baayam nayam fi waqam mbaatar bu baayam jeg si fi waqam ku ne na far gën baayam ba aw fan te sut ko aw fan ëpp ko xam-xam ëpp ko wërtëg fapp akuk jag gën koo ragal nag yàlla boroomam gën koo bari jëf gën koo rafet jëf ëpp ko jaajëf ëpp ko it gëm gën koo bari jëf gën koo rafet jëf ëpp ko jaajëf ëpp ko it gëm kuy jàngi wii way naam ndamal way te bu mu jëm nay tiimi moroomam sëriñ bi fam nu yëkkati teg nu te kaw tefal nu may nu xam ak am dikki nu ndimbal lu mag dakub tal defar lu dakkul lu nuy teree dem am dana tee dem ñàkk di tee dem bu ñu nu tee dem tagal nu accam dolli nu kattan te dolli nu man koo dolli kattan mu noti noonam koo dolli ak man mu dolli kum man ku dolli kum man farmani maasam naan yeesal yaqte yeesal gaa yi nu nekkal te dolli nuy may na nga nu feesal te daal di feesal kër yee ci fonkal yu dul jigéen may wutal nu yóbbal boo xam ni yóbbul te may nu ak tal ak lu wéral way may nu ñu dëggal am gaa yu dëggal lu gën a dëggal lii def ko tey tey te xel sunuy fan te fara sunu bon fangal nu ak bon xaw akub jay fegal nu bakkaar yow la nu yaakaar ngir yaa nu doy kaar ba yow la nuy roy solul nu bekkoor te may nu ay wuur ñu defa def góor te ngóor a géy wéy fabal sunu baaxal te jóg faj aajo yi tey faj rag yi lii rëy fajal nu xol yi te faj yaram yi soppil nu may yi bonu mi ak kay dogal nu ay tool yu jigéeram lool yu nangu yaa lool nangul nu ñuy way gerte na nangu dugub na nangu lépp na nangu te bu mu gis tay tegal nu am ruur taw ak waxi buur ak waxi waa buur ak ceebu muy dey bësul na jëm kaw te teel a jëm kaw tey jëm a jëm kaw ba mu dugal mbay ba fab sunuy mbay jox la ba jël way ku la joxul mbay doo gis ndamam mbay mun na nga aajo nay sunu aajo te bu nu aajo lenn lu lay moy faral sunuy moy te soppi koy may bal nu daa moy dellu di ay may fegal nu ak moy ak képp kuy moy may nga nu ak moy gu réeréy tey saytaane jóg na gaayam ya jóg na yu bon ya jóg na teggi nu nun wéy ku yàlla réeral kenn du ko baaxal ku yàlla baaxal kenn du ko réeral ku ñu joxug jub day mujj far jub ku ñu xañug jub day mujj dëngal sëriñ du koy def murit du koy def yàllaa di koy def def na ba sottal lii xam ko tey ñaan xam ko du tee ñaan yàlla deful ñaan digle ko ñaanal ñaanal nu may la ba ma tees la tefar musal la ci la nga tënnul loo bëgg sàkkul ngir yàlla ñàkkul dara te bëggul lu dul ko tallal am na lu nekk mënoo lu nekk jox na ku nekk loo bëgg feenul yàlla xa ñaanul kenn te siisul kenn te xeeyul ku ñàkk ñaanul du tëji buntam du tere buntam ku ñëw fi buntam muy la tàbbil moo jam ña baaxoon jégal ñi tuuboon xamal ñi réeroon sédd ñi teewul jox na ndawu yiw te jox magu yiw jox ñëpp aw yiw jëfam ji ñaawul du dara di ñaawal njorta ka ñaawal ay jëf ku ñaawal moo woolu baaxul yàlla du fab lor di ko tegul lor da koy tegal lor di ko ko teggil jortal lu taaru te def lu taaru ku def lu taaru jortu ko giijal képp ko am lëf yàllaa ko jox lëf ku jeele ay yëf jëm ca te sellal yal na ñu yàlla muy may gu sell ak jëf ju sell du dara sikkul yàllaa bari may ngir bàjjo bee may yeneen yemoo may ñépp te jéerul may na ku nekk lépp lu nekk dese lu nekk bu dee di jeexal jox na ku nekk diñ na ku nekk bëggal ku nekk am kodd ak njël bii buur a mat buur moo mat it nguur moo mat a def buur moo mat a wéetal boo ko defee buur mu def la nag buur nga def larug buur bu mag di jaamu yal na defuk baax ci ñun gudul jeex te may nu xar baax ñu kenn foogul yal na nu baaxal fa xol yi sellal fa jëf yi tandul fa fan yi loqal yal na nu may fan wu guddakul man musal nu fig bon ak jëfi ngistal yal na nu may ak mucci te may nu muble te may nu cant gu yomb yal na nu dàkkul mboolem lu jékkul faw ak lu neexul ci bët akub xol yàlla bu xay ne fenn fu nuy ne yàlla bu nuy ne fu nit ñu muccul yal na nu mucci nekk fu mucci nekk ak ñu mucci yiw bokk nuy dal mboolem ku ñuy ñee yàlla na nuy ñee gisam ne it ñee nit ñi nu àndal yàlla na nu bëgg ak ñu ne fi nuy bëgg faw te jàngat sunuy xelit dal yàlla na yàlla yi dolli sunuy may faw ak ay xëy dolli sunuy xel yàlla na nu nekk ci njëg mu nekk ba tàbbi rekk firdaw si jomb yàlla lu muy def moo xam na muy def ba def ko ngir lëf tawu ko lottul moo sàkk xar baax moo sàkk it baax ku mu xaral baax du neex a nekkal dana la tee def ba noppi tey def la mu la tee def te du ko yàqal te boo ko dee roy ca loola sag rey jaadu na bul roy lu yoona neeful te boo ko dee roy ca loola sag rey jaadu na bul roy lu yoona neeful roy ko am garal ca gar ga def mbir te jële nag lor ca roy ga yeewul foo gis ku mën ndox day tab bitim ndox tey aaya am ndox gaaye ko miinu digal nañu si waay lëf tere kow gaay te may nañu si waay ba ne ñu dendal lu ñëpp bokkul matul la tëddal te dëgg teeyal bañu ni naanal te rikk jàppul bañu ni sukkal ndab yaa ngi lekkal ba rek gi santal buy tëb wutig dex ku tëb wutig dex te mënulum ndox gis lu mu santul addina baaxul ndaw lu mu wéetal def ko lu baaxul bul génn nëbbul nëbbul ba xëy mat def kenn kuy not ku deetatul not ñu fab la feeñal bul jéem a feeñal sa bopp feeñal sa bopp baaxul bul digle diglul bul jiitu toppal daw jiitu baaxul ku yàlla jiital na nga ko jiital bul doyee doylul bul yeeteewul murit bu jàngal sëriñ ba tuubal loo maantee xam jaayal la ngay xam jënd la muy xam yar baa ngi jàppal loo mën a tee xam jaayal la ngay xam jënd la muy xam tonoo ngi jaayal ku jaayulu xam faw akuk xam jënd xam ak am du yegg xellul xamay teree xam xamay teree xam jàppuk xam ak xam jibul ku yëggul bu gaaw a doylu gaawal te duylu ku gaaw a doylu ci yiw du woomal bul gaawe tee wéy ngir gaawe ak wéy ak mooy la teg wéy matu la gaawal li tax bu dee wéy war na balaa wéy xam ci lu muy wéy bul def ku téeyul na ngay sori mooy ak luy mbirum mooy tey musu ak mooy fawal leerul ku tuubulum mooy bayiwulum mooy tuum damit day réer ak a réeral yàlla mu nuy leer ak a mayeeg leer te génn ci réer génn ci réeral sëriñ jaay yi bari na rag yaram yi bari na faatu bakkan yi bari na tegal nuy yett bu wéral raga ci ndaw yu jógati ak yëpp ay wu jógati ak yëpp dee ku jógati na tëggi faw sunu kër luy lor lu jëm nee ko na muy bépp murit faw te mooy bépp jullit faw te mooy Baabakar ak kër Baabakar man dénk naa la sama mbir faw te dénk la bu wéral ku sàkku yaa ndigal bu wéral te fi tarax leen na ka jaral yor mu fegal mu jëpp lor teeg ëllëg ay yori bor feesal mu feesal sunu këram faw ak i cant ak i jur ni nga ma def ku gudd fan ku gën a gudd ñëpp fan te kat defal ma sama fan yëpp ni laylatul xadar may ni yaram mu wér a wér ak jëf ñëw ji wér a wér ak sa ngërëm mu wér a wér loo xam ne deesatu ko far teeg ëllëg bu ñu fu jooy sunu njaboot it bu ñu jooy te gam luy waral jooy saxal ñu ci cant gu bir teeg ëllëg ñun bu ñu ñee kenn te ñëpp nañu ñee te bu ñu bañ di kum ñee ba dugg nañu firdaw si far lu yàgg yàgg bu mu gis lu dul mbég te mu mus lu dul lu neex a neex a mus te bu mu jóg ci la mu war bu sama xel mi jóg ci yow bu ma dajit lépp ndara yow na sama xel dëkk ci yow samay kayit boole koor dalil ma wallis ku la moy teeg ëllëg te jox ma may kuréy bu ëpp gépp may fopp te gën ko nag bu wér dalil ma wallis ku la moy teeg ëllëg te jox ma may kuréy bu ëpp gépp may fokk te gën ko nag bu wér gis ma man lu jar taxaw seen nit lu jara daw man li ma gis moo jara daw te li ma seen a ëpp a jëm muy ko kii soxnaa ci kër la dee fi njeejoo ak i jur te xam ni waaju ko yor mu sàggane yee si kamam ku soobu man di yoru tiis teen koy wuréw diis far boole aw tiis ak ko diis bu bëriwul kattan du dem pase bu fees ak marchandise dana ci digg deq diis waa ji ko yor matu la siis akaañaane la mu am ngir jàllagul jàlleegulit te muccagul musleegulit xamul la koy xala dalit yow bu ko ñee far ko yërëm texee la am yow sa boroom moo gën teree am sa moroom te lépp lëf lulul boroom morooma góogale na xam soxna du lëf lu dul moroom morooma lay xañ sa boroom defal li lay rëy sa boroom am buur a gën am dagam jëmala jëm ci sa boroom boo te jëmee mu jox la moom boppam te jox la say moroom nga far ko am ami mayam ku boole yàllaa ki mayam te boole buur a ki dagam te boole sanga ki laam yii le te làq ngërëmam ku am boroomam am lu ne ku ko amul ñàkk lu ne jëmal ci yàlla jëm ku ne ngir maa ngi nii na nga ko xam xamal ni yàllaa mat a jëm ku jëm ci mooma mat a jëm jëmal ci yàlla maa nga jëm ci kala biir mi cala jëm yow abdu xaadir laxasu te awaaw yoonu ndigal tey wattu fakk bu la tël ngir fakk yee gën a bari jigéen a nguuta pakk la aw fasa nguuta pakk la waajaaya nguuta pakk la te pakk yi daana lore seytaane mii daana file te bakkanit daana file banneex itam daana file adduna it daana ware te léegi yow mi yaa ngi nii yàlla mi nga yuuta ngi nii te li mu lay tanta ngi nii say noonu ngi di la tere say noonu ngi wër la fu ne di la fexe def na wu ne boo farluwul farlu gu ne boo mën a yegg fu sori moo tax mën naa la tubayul te fexe fex wuti ndigal ku fexe fex wuti ndigal bu merk dee su ko mere murit ndigal mu xari sa ngeen bu kawee tàbbi sa ngeen bu kawul génn sa ngeen ne biirante ka bëri ndigal ku ko génn di ruur yëf mbaatu lëf dal di ko ruur muy ruur akee gis lu ko ruur tey loru daalaka rek tey loru daalaka lore ndigal ku koy génne di nuur lu mbaatalo daldi ko ruur muy ruur akee gis lu ko ruur tey loru daalaka lore tàbbil te bul génn ti yow mukk te bul geesoo ti yow mukk te bul fekkoo ti yow dëgg defal gortu gore ak gor bu jàppee du bàyyi day rafetal te du tay te yedd képp ku tay tey sant nag lu naqari lii te bul geesu ginnaaw xamañ lëf ñuul ginnaaw lu dul yooyu jëmi ginnaaw te loola ay lawu bari abdu fabal sa dénk bii te dénk naa la dénk bii te rikk abdu dénk bii day ko xalam ak a tari ma dun ma dénk la yowit dénk bu yéemu bu rafet te nañ ko jàpp bu rafet kon yàlla may la lu rafet tabal sa it te jëme kaw tafab sa lépp jëme kaw ku bëgg kaw day wuti kaw sa it te ji watul mu rot it te ju rot musiba la ndax bu rotee yàlla bala ku sab sa yàlla it bala lii na ko jara xaw du ko kat bis boo xëyee tam am dara ak sa bakkan defal dara xamal ni xëy defoo dara bu may murit la muy murit ku xëy di jekki bu ko roy ku xëy di daagu bu ko roy ngir nit ku dul nit mat la roy ku xëy di def yéene du nit ndegam da ngay roy na nga roy waa da nga xam ni dafa xëy soobu lefum ndigal bi lay te geetuwul taxawu nit kii moo di nit ku mat a roy ku roy ku dul kii mat a rey lefum ndigal waaju ko moom rendi na boppam te yewut la dee fi wut moo di ndigal la dee fi bëgg di ndigal koo xam ni kii mooy na ndigal asal di gis la dee fi wut dabal ndigal ku ko fagul déefu lafat ku ko yorul déefu la yor ku ko fotul foo mën a jëm déefu lafat yàlla nu yàlla boole fat sëriñ bi it boole nu fat januñ bi it boole nu fat ñu dëkk nag ci seeni wet te dëkk nag ci seeni xol ñu dëkk nag ci suñu xol ñu topp nag seeni ndigal ba xam-xam ngërëm ñu mat maduna tag denca ngi nii maduna say yëfa ngi nii maduna tag faya ngi nii jàppal ci seeni rafet li dala tey jàpp ëllëg defal ñu koy cant ci mbégte suñu feek ëllëg na jag te bu ci lëf jagadi kat donte damaa moon am daamu nit mësula am ko nit bu tee mënu la am te naa la doy lewu na jot donte damaa jagoon a jag bëgg na jag ku ma sa jag ko nit bu tee mbàkk ma jóg te jëm ci yow di la nëgët donte damaa réyoon a rëy bëgg na rëy ku ma sa rëy bu tee ma wut ci yow rëy te xam ni yaa ma gën a mat addina donte naa ko moom xamal ni yaa nu boole moom man la ma moomal la nga moom def ko ni sa tànk ak sa bët lu nekk ni yàllaa ko moom faf na la jébbal la mu moom faf na di yow nga faf di moom si nit di gën cee ko rafet dangaa defoon suñu moroom ba nit di ngay suñu boroom bi nu xamal suñu boroom yàlla nga yow muy niru nit niru nga yàlla aw defiin niru nga nit ñi aw doxiin déefu la xam déefu la miin déefu la yar déefu la jot waxtu jot nga laxasu faf mën yéenee laxasu topp ci yow di wat kasu bañ a taxaw bañ a tawat yow rek yaa mat a faral yow rek yaa jar a bégal yow rek yaa mat a jëfal wat nga sëriñ matub xarit bégal nga ñuy dund ñuy dee yaa jar di wut rek ba dee ñu la amul ñoo gën a dee te gën a ñàkk wërsëg it yow yaa di ràcc bu ñu sëf ku nekk yaa ko gën a saf ñun ñëpp yaa waral nu saf ba ku ñu gis ñu sawit ndegaañi dee rëccoo lu bon may nu rëccoo na lu bon ba dal di daw léegi lu bon ci sunu dund bi ren ñu jaañu dee bëgg lu baax may ñu bëgg na lu baax ba dal di def léegi lu baax te ba lu dul lay tax a gën donte dañu del ci file farlu gañuy ame file may ma ko léegi man file te def ma waaju gudd fan bu ñëwoon léegi file melawa ñuy ame file melal ma léegi moo mele musal ma ciw meloo bon ñu nga ma ñëwee ñu xam njëriñ li gaañe dee xam njëriñ te sax ci def lu am njëriñ te dëddu mooy faaw ak fen na ngeen may ñu xam njëriñ li gaañe dee xam njëriñ te sax ci loo def lu am njëriñ te dëddu mooy faaw ak fen lu dee fi rëcc foofalee mënu ko rëcc mun filee dëkk ba nuy dem foofalee ndax bu ñu fay dem di xaram sutura may ñu ko file faw te may ñu ko fëlee te fay ñu fii far ñu fëlee far gu rafet yow mi ko man xamal ñu xam-xam bu rafet te may ñu am am bu rafet ak jëf ju mag ju rafet ak ngërëmal njëriñ la gën xaala nu may nu jàmm diir ak biti def ñu waayu buur rokkas nu it ba duñu buur mu takk dam mu nit gosen sakkal nu ay daara yu wóor ñu fees ak ay murit yu wóor te def ñu nit làmmiñ ñu te def ñu nit ku bari muur te gudd fan guddee ni ron sakkal nu ay daara yu wóor ñu fees ak ay murit yu wóor te def ni it ku bari muur te gudd fan gudde ni ron ñun ñoo ngi lay sant bu wóor saranu fa sant bu wóor ak njël ñu sarlu dal wóor bëgg ñu dëgg ca wéram te ñu àjjana ci biir ak biti may nu wér bu wóor ñu làq àjjana lu wóor ci suñu dund gi lañu te lépp nekk ci loxoom yàlla ñu yëkkat ak loxoom la nekk lépp ci loxoom fekk suñu yoxonu noonu yàlla ñu yëkkat ngërëmam ak ci ngërëm ku mu gërëm ak lépp la fu mu gërëm jox na ko nuy sant ka moom yàlla ñu cas wéru yaram ak fan yu gudd ak i gërëm li la yi dul jeex ak waram soxna ki jëf yu gën i koom sutura yàlla tan ciix fekk ëllëg mu ko foox mu sant faw ni ko ciix jëla ca yëf yi wooma woom yàlla nu yër mën a jëm ci saamu daw dikk ni xuus nit guy yoxo yaxoos mu nga ko boole ñëpp tiim yàlla nu caf bu teel a teel fekk ëllëg lépp ñu néew jox nu ko jox gu teel a teel mu fes guddeeful mën a niin képp ku ñu yéem a kañee daara ñu ko yéem a kañee yal na ñu yéem a kañee ba fa kanam sunu boroom yal ñu yàgg nag ci kaw suufa ndam ak jàmm ko yiw ba mu jinit ñëpp ci kaw suufa ko yiw ñàkk moroom yal na baax a baax a baax yal xar baax ak ju baax ba ëpp xar baax ak lu baax ñu fekk ci iblis ak soloom yal na mucc mucc de raw ay wu nekk rawale gis jàmm jot ca jotale set le setal ku nekk noonu jàmm ñu jub ñu sant nu ay wépp wépp tegg nu lii wépp wépp ci nu yëpp muy ñoom ak gerte ci juum jàmm ñu fab la set doxal lépp ak lekal mu nekk dal lépp ak lefit mu nekk dal jox mu tey ak ëllëg ñu ñoom jàmm ñu am kattan bu ñu sant ba wër bamba ci nii sagali wa pag beeke ay yi ba dina may jàmm ko yiw yàlla na xam kattan bu ñuy sant bu wér bamba ki nii sagali wopp ak beekaay te dina may jàmm ko yiw fu nekk wopp xew na fa fu nekk it bee xew na fa fu nekk it ay xew na fa te xam ni fii jàmm sa xew sutura am na fi bu baax teraanga am na fi bu baax te ñitti am na fi bu baax ñun war noo sant sa kaw te ku ñu may mu sant ko jàpp na may ga tënk ko ku jàpp raw nag tënk ko mu maatee fexe ba raw ak ne dafay daw du taxaw bépp barab bu ko gis mu ñëw te kenn sant ko mu daw fañ ko sant lay taxaw bu ci ba yi dee fi dogal ak ñàkk a sant ko waral lar bu ñu may bu ko yëgul ñu nangu may may ga far ko taw musiba yi dee fi dogal ak ñàkk a sant ko waral lar bu ñu may bu ko yëgul ñu nangu may ga far ko taw ku bëgg ay yi mooy sa kër tuubal bu wér sant bu wér ku am kon ay yi mooy la mooy sa kër yeewu la yow mi lay nelaw ku bëgg ay yi mooy sa kër tuubal bu wér sant bu wér kon ay yi mooy la mooy sa kër yeewu la yow mi lay nelaw sawara buy tàkk di ñëw bayal la wër fa nga ne yow kon waxtu buy tàkk ba ñëw fala nga bay teggi la yow sawara buy tàkk di ñëw ku xoddiwul xanaa di daw ab dof la ngir ba mën a daw barawte dem lañ ñax mu wër lay mus le léegi tuubi mooy bu wér a wér te sant may ku tuubi mooy te sant may ay mooy ko far may ñu ko aw man rëccu naa mooy ñi ma mooy te sant may ñi ñu ma mooy yàlla na ñu far may yi nu mooy lépp ko sopp leen yàlla na ñuy sant ka tuub tey bañ a def mun mën sa tuub ku bàyyi mooy tey dëkk tuub te ñëpp ëpp leen yiw jonga ma di foo tëkk buub te fu mu toll ni buruub di sukk kay sant ka tuub kenn du fa lu mu sëriñ du nax am muritam murit du nax ak sëriñam sëriñ dafay jaayi yëfam ku andi lëf mu jox ko lëf ku andiwul nag lenn lëf te bëgg nag mu jox ko lëf kookale nag moo di ko def ngir day fexee naxee ka këf te yàlla kenn du ko nax waaye nitam déefu ko nax ku naxe it boppam la nax yàlla du def waayam du def ku ko joxul lëf ndare wax doo gis mu jox la ndara wax ku ko joxee jëf ak wax mu jox la ay wax ak jëf loo andi yóbbu añ njëgam loo andiwul ba fa njëgam loo bëgg a yóbbu añ njëgam te andiwoo njëgga suruf tànk ngi nii njëggaa ngi nii gunnee ngi nii njëggaa ngi nii yow nii di jënd yaa ngi nii te yow te def loo war a def bul lore yow te bul loru bul war a it te bul waru dafa la def nit ku yaru ku yaru moo safe te saf loo saytu am njëgam fabal loo saytuwul njëgam bàyyil te wuti njëg dëgg defal mu yema wax moo mat a def na dee si dikke fi bitig fekk fa ngeen ji tere tan nga naa ko jox ma sa bitig bu la te yow joxoo ko lëf naan la naan yor sa xel fàtte gën ba fit gën fàtte di koy fab loo yëgul ba fa di koy daanee kasëf ku bëgg ñi day siyaare ji léegi ni képp day dugg ji te képp nit kuy dugg ji na yóbbu yëf wute ji yëf moo tax ba koy siyaare ji na fa bu dem joxe ji ndax yàlla kon day ñibbi ji yóbbaale ay mbóot ak yëf ku not ci yow ñu di ko nee te dootu feer ku ñee ku la ba nag kenn du ko ñee ba ku la may daf dina ñee maa ngi liggéeyal man ki liggéeyal yàlla liggéeyal yonen bu mag ba te daana mbëri ya dàq ga war ya nangu gu bari ya ak gu baram ba boole ngoram ga ak njullitam ga ak njaxlafam ga ak xam-xamam ba ak lewetam ga ak wayefam ga ak sawaram ga am rek yaram ba moo andi xar baax moo yaa xar baax moo maye xar baax may na ko képp rekki na wërsëg ak barke yor nag mi ngi di may nag gaay muy lépp barke yi daw na wërsëg yi daw na mbooloo yi daw na jëm barabam ba xam-xam yi daw na ngërëm yi daw na yiw yëpp daw na tabbi xolam ba njagam xamoo wax jilee ma lay wax ak kii ma lay wax moo di sëriñ ba moo di ku xam ka moo di ku xam ka moo di ku gëm ka trois di ban ba mbër yee ka koo xam mbër yee ka koo gëm dalee na xëy jam jox leen i kumba nangu tubay ya nangu fital ya ak fasi gor ya jox kuréelam ba waroomi daara ak seeni daara la doomi jaara di boole ñépp def leeni jaamam def leeni doomam ku ne di doomam jatay laram ba fóoree ki dongoom kaan ki dongoom buura ki mbooloom la boole sox ba ñépp ni janjang kenn fëfatul jóg ku ne ni landang ngir jam-jamam ba yàllaa ko may lii moo ko defal lii tenoo gërëm lii gërëm dogal ba tey jébbuloo des ku ko deful des luy waralul des nit war na koo ba xam naa samay mbir ak sama waa kër jox ko ko man far jox na mu jàpp jox naa ko man nii saa lépp man nii yàllante man nii ma di lalam ba yàllante may fas mu def ma aw fas mbaa mu waru fas ma yor jatan ba yàllante buy dem mi ma jógan dem ma topp koy dem yoral ko der ba yàllante man may mbubam ma mbaa may dalam ba mbaa may pari solam ba yàllante sax may tànkam ba mbaa may xolam ba mbaa may deru lexam ba yàllante sax may boppam ba man tey noppam ba man tey far deru bët ba tey ba kanam ba tey xar kanam ba tey xasabam ba tey sikkimam ba tey ka ko sopp tey ka mu sopp tey muritam ba tey xaritam ba yàllante forme yi mante manit may moom it nu far xëy booloo ni rapp di jënd jëmm tey yaari jëmm yu bari jàmm te mën a nag ba xam naa ni maa bon xam naa ni moo gën saa su ma nee kun may lar bu jub ba tey lar bu man ba tey lar bu xam ba tey lar bu xam ba tey lar bu gën ba yàllaa ko baaxal yal na nu baaxal yal na nu seexal nun donga yépp yal na nu may nun jàmm ngërëm ngën te suñ déwén gën ren diile fapp yal na nu may ak yokkute may nu yokkete may nu bàyyi ku fépp te may nu it ak farlu te may nu yaru te may nu jébbule lépp te may nu tawféex ak jëfi tawféex ak gaayi tawféex yu xëy ni xëpp andi sunuy mbég ànd ak sunuy mbég dinu joxey mbég ak seeni bopp ba nu liggéeyal ban ba liggéeyal yàlla liggéeyal yeneen bu mag ba liggéeyi jot na sumi ko jot na jébbale jot na te yegg jot na xam yàlla jot na xam yàlla jot na aw ngir ma jot na te yegg jot na jot gaaya jot na raw gaaya jot na gën gaaya jot na lu nekk jot na yàllaa ngi nii woo ban baa ngi nii woo nan bokk wax moo ndax wuy jot na dund yi jeena doole yi jeena yaram yi jeena soppi ko jot na sikkim yi rëy na diine yi sew na addina wéy na laxasu jot na angone wéy na banneexu wéy na ngir mag gi ñëw na kër kër yi jot na ku rax bi jaawam janoo ki doomam na xam boroomam ngir xam ko jot na ko gis bi jaawam te gis ci doomam toppi boroomam war na ko jot na mooy boroomam mooy boroomam mooy moroomam te wattu boppam rafet na jot na soxnaa ngi daagu dooma ngi daagu sëta ngi daagu fagaru jot na sëriñ bi may nub jébbulu may nub bàyyi ku tey nag ngir lépp jot na yow tere tang bi ne fi bitig bi may noo tab bi tey sa bitig bi sarax nu ak njëg sarax nu ak jag ba nu juboo nag reenu te ubbi yaa fi yorum njëg yaa fi amul jag koo tayaxul njëkk ba jagg tab bi yaanuy lebal nun yaanuy fayal nun yow yaanu saf nun te doonu sappi yaa di garab gi noo ngi fi ron gi di portu barke tabbi la tabbi noo ngi fi sag ron di waa fa kay bon ngir xam ni yaa gën ku dee ci topp yaa tax sunuy xel dal te sunuy xol di sedd dundal defar nga dundi seral nga xol yi dalal nga xel yi teeyal bakkan yi fekk nga torompe feesal ma dell ak barke ngal la ngir jëmmi yàlla ak yonenam ba feesal ma dell yeesal ma pull ma xëy ni mëll jiite kuréel ba xamal ma ay yëf amal ma ay yëf yu bokkul ak yëf yu ñëpp guppe xamal ma yëf yii amal ma yëf yii ak yëf yu gën yii yow saa sëriñ bi xam nga yi lay yëf am nga yi lay yëf may may lay yëf yow saa xarit bi dolli ma ak xam dolli ma ak am te dolli ma gëm yow dollikat bi na nga ma xëy fal yow ngeen ji ak fal dafa ma tabbal nag sa bitig bi ma di la jaayal faw ak a jëndal ba nga ni sartal yaa yor bitig bi sëriñ bi ak barkeb di beer na sunu àddina ji leer sunu alaaxira ji leer kër gi leer gee bokk leer may na ci barkeb altine tey ak ëllëg may yu tane bu kenn gis ku mu tane bis ba kuréel yépp di teer ak darajay talaata it xañal sunuy nooni mébét faw ko tajox leeni tawat ñu ñàkk bay liggéey xaar barkeb alarba na mu jot lu nu rawan caay mébét ba noppi jot képp nit it ku nu rawan baraw ko kaar daqal ci barkeb alxemes lu mu bëggul ba mu nimes tey ak ëllëg ba kenn du gis tànkam ba sax ak fu mu jaar xajal ci barkeb ajjuma saaji yépp tajama jox ma li may wut wuyu ma may nu nga neeri kariyaar may ni ci barkeb gaaw nag jaglu gudul dañati ak ngërëm lu mer dul topp ak bunt di yow bu yaata leer jëf yi na tandu dund yi tandu nawet yi tandu nga féq fan yi jaambur na seddu mbokk na seddu xarit na seddu nga dàq lor yi ku sori wallul ku jige wallul ku loru wallul te dolli gëm yi ku suufe jàppal teg ci kaw jal taraat ko ak pal falan tawat yi mag ñi defar leen gone yi yar leen ñi daanu fab leen te boole xol yi mag ñi musal leen ndaw ñi musal leen sëriñ si far leen ñi far murit yi mbokk yi booleel jaambur ñi faaleel ñu dee ñi jaaleel te sëñ mbugal yi te xol yi ànd jëmm yi ànd nu bokk ànd sax ci ndigal yi wërsëg gi dollil barke gi dollil mucc gi dollil defar barab yi xel yi dal leen xol yi teral leen gan ñi teral leen nangul nu jëf yi te may nu ay mbóot yu nuy teree tiit ci lépp lu ñuy tiit yoral nu fi tiit bu nu gisum tiit bu nu amum tiit bu nu jigéen tiit ñagee nu mbég yi xegee nu ay mbég xabal nu ciy mbég wërale nuy mbég watul nu këriit yow daala barkeel sa jëfa barkeel na nga nu barkeel notal nu mbëri ñi falu ful leen tawax yi fal leen yu ban yi feg leen mabbu xërëm yi ñi yéene aw ay bu ñu mënu ay nañu taleew ay wune ci ay ñi yéene aw yiw nañu mënu yiw bu ñu taleew yiw wune ci yiw yi dundal nu dund nu bokk dund te yàgg dund gañe ci lara yi sa fan wi nay wéy sa jëmm ji wéy nu topp lay wéy tofal la way yi foo jëm mu wër la ngir jëm mi yàlla ki tax mu gëm la ba jox la mbiri yow yaa di jàmbaar ju ma ni jàmbaar jox nga nu ay mbaar neexal nga kër yi yaa gën ku nekk yaa man ku nekk yaa def lu nekk dambe nga ndam yi daane nga mbër yi daq nga mbër yi watal nga mbër yi nopp xarekat yi seytaane daw na xare ba tas na samp xejjum na mu jëngëréer yëf yi setaane daw na xare ba tas na sam pexe jum na mu jënga yëfi mu jënga mii réew mu jënga mee réew te taxulaa réew doy nga kuréel yi damee la ku teeñ daana waral teeñ nga def ko niw teeñ yow raw nga xel yi dimbali nooti te wallu nooti seppili nooti dolli ndawal yi nun jaxasal nu te dawalal nu ràcc si fal nu yaa saytu ñam yi ràcc bu ñuy sif ngay joxe yaa saf li ngay joxe saf yaa yor yu saf yi fonkal yu dul jeex xaalis bu dul jeex xam-xam bu dul jeex ngay jox sa gan yi kuy laa ci teere bay naa ci teere jànguma téere te mel ni dex yi jànguma xam-xam ñàkkuma xam-xam sëriñ bi laa xam xamuma fenn sëriñ bi laa xam sëriñ bi laa xam yàpp wi laa am amuma yax yi jooyu maa xam jooyu ma ak am am naa xam ak am am naa njariñ yi jox nañu ma jur ak luy jarug jur jooyu ma waa jur jooyu ma jur yi am naa lu gën baay am naa lu gën yaay man fal naa sa ay neexuma bañ ñi ban maa ma fenkal te moo ma tekkil te moo ma takkal ndombay ngërëm ñi tegal nga nu toor may nga nu yit nguur def nga nu yit buur féqal nu fan yi loo andi moo xam loo téye moo xam fa soobu noo jëm ci ku la mooy nun loo joxe nuy bëgg loo téye nuy bëgg ba loo la ñëw nag nit yàlla moo gën yow yaa di lépp yaa nekk fépp yaa saytu lépp yow la ñu fal kun ndegam dañuy ñaan yow mii la ñuy ñaan may nu lu ñuy ñaan yaa yokk sunuy fan ndegam dañuy ñaan yow mii la ñuy ñaan may nu lu ñuy ñaan yokk sunuy fan jaaraama jaajëf yaa gën ci ñiy jëf te gën ci ay jëf ñam naa ci yow man doleeti nu xam doleeti nu am doleeti nuy ñam doleeti nu man sa ceeb jaa ngi sa jàmm jaa ngi sa buntu baa ngi ubbil ko saw gan yow rek a man gan te yaaye yoo gan yaa mën a jox gan canta ki ndolleen bënn gudul doy mukk nga yaa doy koo mën a gis tey waxuma ay fen mun noo ngi lay root feesalu nuy mbóot may nu ñu dul suut mukk ak a sàggan ñu ñëpp nay daw seeni yiwit daw wut si nuy daw di wut ci saguram ñu di nu jébbal ñu di la jébbal muy dolli toog pal tey gën ku dul nun ñam naa samay ngarab tëj naa samay kër tëj sama waa kër ñëpp saxal njël ku bëgg a jekki ma bokk jekki ku bëgg a génn ma ni ko laggal ku bëgg a tàbbi ma ni ko tàbbil ku bëgg a génn ma ni ko génnal way naa ci yàlla yal na nu yàlla mayeeti wall bu pënd àndal yal na nu tabbal ci lu dalum xel lu sedd ci xol guy yi lu yombul yal na yesam mbég te yeesamu jag yesam ngërëm nag ñu rot mu fara jël yal na nu bàccal garab bi ndimmal yépp ñu rëtul nu lépp ndimmal yal na fi teeral tiraanga teeral fi barke teeral fi jàmm ko fal yal na taxal ndam fi nun mu dul dem tey fegi lëndëm kaw ak jaljal yal na nu buural calam ñu buural ñu jiba buural raadu ba yeggal yal na nu baylee bu wér te bayle gaaye nu baylee boole nu nangul yal na nu ñaanal te ña mu ñaanal bokk nu ñaanal la mu tànnal yal na nu daanal te ña mu daanal bokk nu daanal fonkal yi fonkal yal na faran nun ñu ñam faran nun ñëppam faran nun seral sunuy xol yal na nu baaxal yal na nu neexal yal na nu xeexal yal na nu dàqal yal na nu baawal yal na nu gaawal moo mën a gaawal buy def du yàggal yal na mayeeb taw yal na mayeeb yiw yal na taw taw ñëwal lu dal xel yal na nu yor nun dolli nu kattan saxal nu cig man saxal fi nun njël man fàtte loo ma te dëdd loo ma te sàmmi loo ma lu dul sa jëmm te bëgg loo ma te sopp loo ma te sàkk loo ma faw sa jëmm lu dul sa jëmm loola du jëmm lay ngeen di jëmm moo di sa jëmm boo dee mayee ser mbaa ngay mayeeg jur mbaa ngay mayee tur may ma sa jëmm ndaw si lu muy may farwa lu dul sëy booba da koy jay may ma sa jëmm fabal sa jëmm may sama jëmm fab sama jëmm may ko sa jëmm yal nañu fa mbay fawak ndamal mbay ak njariñal mbay jébbal sëriñ mbay yal na dugub daw barkeb dugub daw mbootum dugub daw sotti sëriñ mbay yal na ngërëm daw xam-xam bu wér daw diine ju wér daw sotti sëriñ mbay yal na ragal fëx dëdd gu wér fëx wërsëg wu leew fëx sotti sëriñ mbay yal na njariñ ñëw bu na njariñ ñëw gudd fanin ñëw dëkk ak sëriñ mbay yal na toxum ndam buy dolli nit ndam tey dolli nit gëm jitti sëriñ mbay yal na juboo ñëw sutura it ñëw mujj gu rafet ñëw sax fi sëriñ mbay yal na tawat daw lu koy waral daw lépp lu bon daw teggi sëriñ mbay yal na ña gëm ñëw mboolem ña jub ñëw ña yàlla saf ñëw parab sëriñ mbay yal na xoram ñëw ñaam xoram ñëw ña koy wutit ñëw ànd ak sëriñ mbay yal na ñu murit ñëw seeni sëriñ ñëw ñu bokk koy ñëw mooy ci sëriñ mbay yal nañu feesal ñépp ak ndimmal dellu te feesal ruqi sëriñ mbay yaa jara féeteel yaa mata féeteel yaa neexa féeteel yow lanu féeteel xëynoo ki mbégteel wërnoo ki mbégteel renoo ki mbégteel duynoo ki mbégteel yal na nu xëy naan ci géeji rahmaan ba man di raamaan tey dunda kay beel yal na nu raamaan ci ngóoti rahmaan ba man ña raamaan ñëpp te barkeel yal na nu dëkk ci jub te dëkk ci man te dëkk ci mbër mi ndam ñeel yow yàlla yaari saajjanaari yaa tere yu may faf nu ko jagleel yaa ëpp ak pay yaa ëpp ak may yaa ëpp ak moy rusloo nga dammeel xëppal sa yiw wi ci sunu ay wi te jàpp ay wi ray def ci bàmmeel xëppal sa may yi ci sunu moy yi far sunu moy yi yaa mucc ci mus leel xëppal sa fal gi te xëpp jur gi ci sunu kër gi yaa tedd terleel yaa yor ngërëm yi yaa yor dërëm yi yaa saytu ndam yi ak ñam yi dégleel yaa mucc musleel yaa tedd terleel yaa tedd dégleel yow la nu féeteel buurub aras moo di buurub dëgg-dëgg bu dul dee bis du folliku bis alhamdulillahi alhamdulillahi rabbil aalamiina ndaxam ak réeratee ñépp naa alhamdulillahi alhamdulillahi rabbil aalamiina ndaxam ibliisa tee ñépp naa alhamdulillahi alhamdulillahi rabbil aalamiina ndaxam bon donga tee ñépp naa alhamdulillahi alhamdulillahi rabbil aalamiina ndaxam nun ñépp war nanu naa alhamdulillahi alhamdulillahi rabbil aalamiina ndaxam mboolem ñi baaxa ngi naa alhamdulillahi alhamdulillahi rabbil aalamiina ndaxam mboolem jullit ñaa ngi naa alhamdulillahi alhamdulillahi rabbil aalamiina ndaxam ñi sopp yàllaa ngi naa alhamdulillahi alhamdulillahi rabbil aalamiina ndaxam ñi yàlla soppa ngi naa alhamdulillahi alhamdulillahi rabbil aalamiina ndaxam mboolem sëriñ saa ngi naa alhamdulillahi alhamdulillahi rabbil aalamiina ndaxam mboolem murit yaa ngi naa alhamdulillahi alhamdulillahi rabbil aalamiina ndaxam yàllaa ngi sant ñi naa alhamdulillahi alhamdulillahi rabbil aalamiina ndaxam yàllaa ngi dolli ñi naa alhamdulillahi alhamdulillahi rabbil aalamiina ndaxam na yow araf ña nga naa alhamdulillahi alhamdulillahi rabbil aalamiina ndaxam malaaka yépp a ngi naa alhamdulillahi alhamdulillahi rabbil aalamiina ndaxam seytaane rekk waxul alhamdulillahi alhamdulillahi rabbil aalamiina ndaxam buurub aras moo saxal alhamdulillahi ñun ñëpp yal na nu sax ci sant sax ci lu ñuy santaane lépp saxal alhamdulillahi alhamdulillahi rabbil aalamiina na sax ci seeni làmmeñ bu wér alhamdulillahi alhamdulillahi rabbil aalamiina na sax ci xol yi sax bu rafet alhamdulillahi santoy ndigal moonu war moo jaadu fawwu ci nun moo taaru fawwu ci nun alhamdulillahi yàllaa rafet ëpp naa wax lëf lu dul jërëjëf du wax lu bon du ko def alhamdulillahi moo gën ku nekk waxam gën jëpp wax jëfamit gën jëpp jëf ay ibul alhamdulillahi tabaarakallaahu moo mat moo desul desewul te moo matal gaayi mat alhamdulillahi alhamdulillahi rek kay wax ju am ja njariñ mu ñëpp yàlla nanu naa alhamdulillahi ba tàbbi firdawsi biir ak biti tàbbi gu wér xol yépp sedd nu naa alhamdulillahi alhamdulillahi nun noo am lu jomb lu gën ay réew yi réew a ki pal alhamdulillahi alhamdulillahi yàllaa ëpp lépp lu rëy xam koo gënit lépp lëf alhamdulillahi alhamdulillahi nun nu ëpp buuri njariñ gën koo dalum xal asal alhamdulillahi alhamdulillahi nun noo moy ci kenn ku gën buur ak dagam ya ko wër alhamdulillahi alhamdulillahi nun noo jàpp dëgg ci lëf bu wér lu rëy lu rafet alhamdulillahi alhamdulillahi nun noo am lu sedd xol koo gis sa jom pu bëtam alhamdulillahi alhamdulillahi nun noo am ku sikk néwul te xam lu sikk néwul alhamdulillahi alhamdulillahi noo am nun lu kenn amul ndegam te kenn du ko am alhamdulillahi alhamdulillahi noo am nun lu jomb ci lu jomb ci nun lu gën kajoor ak bawol alhamdulillahi alhamdulillahi alhamdulillahi nun noo am lu jomb ci nun lu gën ka joor ak bawal alhamdulillahi alhamdulillahi nun noo am lu buur ak i dag amul te gën la ñu am alhamdulillahi alhamdulillahi ak baadoola def na nu dem nu bokk fii woo soree alhamdulillahi alhamdulillahi noo am may gu farlu gu rëy ak fit wu rëy mayewul alhamdulillahi alhamdulillahi noo am may gu itte ju rëy ak xel mu rëy mayewul alhamdulillahi alhamdulillahi nun noo am sëriñ bu nu fab jëbbal boroomam alas alhamdulillahi alhamdulillahi noo baax sëriñ te juboo juboo gu sax gu rafet alhamdulillahi alhamdulillahi noo gën ab sëriñ ku nu mooy gën ñëpp ab yonna nit alhamdulillahi alhamdulillahi noo am nun sëriñ bi te am leneen ba am yàlla nag alhamdulillahi alhamdulillahi yàllaa taawu lépp njariñ te moonu taawu ca kaw alhamdulillahi alhamdulillahi ban baa tax nu xam lu nu xam moo tax nu am lu nu am alhamdulillahi alhamdulillahi ban baa tee nu bokk torox moo tee nu dee sax ba tey alhamdulillahi alhamdulillahi ban baa tax nu teggi lu bon raw jépp lor jotu yiw alhamdulillahi alhamdulillahi ban baa tëdd moonu teraw ñun ñëpp moonu bégal alhamdulillahi alhamdulillahi ban baa may ku nekk ndawal ku nee ngi yàpp ka bég alhamdulillahi alhamdulillahi ban baa am njariñ mayandam yal nay mbégam sax fi nun alhamdulillahi alhamdulillahi yàlla sax te yàlla na saxal gëmam gu wér ga ci nun alhamdulillahi alhamdulillahi yàlla sax te yàlla na saxal gëmam gu wér ga ci nun alhamdulillahi abdul ahad yàlla na saw fan gudd mbàkke nga wér te sax ci jàmm ko yiw ak jaamu yàlla gu wér abdul ahad yàlla na saw fan gudd mbàkke nga wér te sax ci jàmm ak yiw ak jaamu yàlla gu wér farlu tewi yàlla na ngay for dog bu sedd sa xol te mu ci teew ayakum ndax sax ci dafa la war farlu tewi yàlla na ngay for dog bu sedd sa xol te mu ci teew ayakum ndax sax ci def la la war toppal sa mag Moustapha bul génn yow ndigalam ngir mag mu mat mag la mat ñëpp sëriñ te du war jëfal te bul faale nit bul geesu nit ci sa jëf na yàlla tax ngay jëfal yonen ba ak kala jur kalay manal dara moo jar def lëf ak bàyyi lëf te kooka nag moo di rabbul arsi yàlla na nu yor yar bii nga am yor ko biir ak biti moo di sa kee moo gën ci yow nit ñu baax ak kër yu baax ak ki jut sa bàyyi gën ñépp te yar dongu dongu la yor yoral yaram ba te koo gis dee ko sant ak yar sa bàyyi gën ñépp ab yar ngir dalay jox a jox ab yar ba ngay ama am ab yar te doomu si yar bu yëkkati bi yar di teg nit waaye moo gën nit ngay teg nit yara kay jannee kay yeewatalot nijaayi ndam ñi nga am loo gis ñoo am ko ci ndam xamal ni moo ko waral ak cant war na gu tar ak cant war na ci ñoom ak yow gu réy gu rafet gu day ni bajj gudul yam fenn mukkati far loo gis ci am sotu moom yi ci yar ak jëf yiw xamal ni moo ko ci def ji wax ku nekk la biir ab doo ki am sëtu ak mbakkee ci ballaatam yow say najaaye ngi nii di sàll kenn du ca par fëral te raw am nga ab yóbbal fa ak raw a des ngir baaxi bokka di ab yóbbal nay ka ci sab saral tewey dëgg bul yam ci indi jaaye ki baaye ngay di santaka doy loo seeni cër lu ko jar foo seer kuy fooka doy loo ab cëram na nga na nga wut loo dolli yow ci sa cër bii ndax nga am cëri cër foo seeru kuy fooka doyloo ab cëram na nga wut loo dolli yow ci sa cër bii ndax nga am cëri cër jallil ca kaw bul fexee jëm suufa kay waxadal ci jolli ngay waare ab xiibon ci ngay note mbër regaayub jàmbur ku koy doyloo barit gu la xam buurub aras kafarak mbër yépp yàlla na nu far yow yàlla na ngay wéy a kay jëm kaw di dolli ku ndam ba jiitu waa kaw te nangoo suusa koy amatur abdul ahad yow sa yéenay bopp yàlla na la dal loo bëgg yàlla na nga am loolee te nga ko wér maryam ma yàlla moo la moom teg naa la faw cib loxoom ba naa la faw cib loxoom loxoom a gën loxo ku ne lu man di am jàppal ci moom lu man di xew jàppal ci moom kon mu musal la faw moom tey ak ëllëg caay wu ne yaa ngi fi yàlla bul ragal ku ne fi yàlla du ragal dara lu dul jadd ndigal seenu la am mucc gu ne jàppal ci lii ñu la digal wayal ci lii ñu la digal xamal ni lii ñu la digal moo gën ci yow lépp lu ne seytaane kët da lay xëbal te naa la ay dawal dawal ngir bëgge laa génn ndigal dugal la ci àll bu ne bul diglu mukkati waxam bul geesu mukkati jëfam boo faale mukkati mbiram yàqal na kat gaa yi gëne bu mu la nax bu mu la fif bu mu la tàbbalik ci lëf bu mu la génne it ci lëf ca dala buy naxi gone am nga ndigal lu wóor a wóor ku am ndigal lu wóor a wóor naaw ndigal bu wóor a wóor ba yegg am tono ju ne lu am njariñ dafa jafe te bala ngaa am lu jafe def lu ñu naa ak a jafe dinaa la moo nañ ko ma ne koo xam ne at lu la jaay bàyyi nga ak maam ak ni jaay jënde ngërëm du am nga ñaay mu ñëw te wut ngërëm lu ne koo xam ne at nu la jaay bàyyi nga ak maam ak ni jaay jënde ngërëm du am nga ñaay mu ñëw te wut ngërëm lu ne mu ñëw te sant yàlla fa ndax mu fegal la jëpp lor te may la ndam jubal sa mbir gërëm la may la may yu ne farlul ci waxtu yi juróom tey jàpp boo mënul nga tiim te jublu nag ci sa boroom faw te jéem a gën ku ne ku julli waxtu yi juróom ci jàkk yàlla na am juróom gudd fan ak wér ak juróom yu bari ak barkeeki koom koo xam ni kii waxtu wu jot mu ñëw nu julli yàlla na jot tey ëllëg lu mu mbébét te hay wu jóg tegi ko moom waxtu wu ni julli ku teew yàlla na am cant ku teew bu réeree te bokk teew déwén te boole jëpp tiir waxtu wu ni julli ku teew yàlla na am cant ku teew bu réy te bokk ni teew déwén te boole jëpp tiir koy teewee nun yàlla na nu teew ku teewulit yàlla na nu teew lu man dexew yàlla na nu teew te taaw ndam lépp ni xiim ku mën a ñëw nag te ñëwul yàlla na ko yàlla toroxal tey jii te far ko toroxal ëllëg mu dëkk ci kasoom murid yi ab dent ngi nii murid yi ak maye ngi nii murid yi ak cant ngi nii ku bañ a sant luy soloom ku sant yàlla te gërëm yàlla na nu bokk am gërëm kuy mere kay bañ a gërëm yàlla na ñu sax yëfa muluum ku bekki nii nu bég ci nun ku ci bégul nu bég ci nun lu man di xam nu bég ci nun ku ci bégul yàlla na foom ku bañ boroomam mata bañ ku bañ yoon it mata bañ ngir maa ngi nii ku ko ci bañ ma bañ ko yàlla na fay te giim ku man di dem jàkkaaka dem ci aw sasam ñu jox ko ndam ku ko deful ñu xañ ko ndam ku bëgg ndam jóg ci sagoom ñun ñëpp nag yàlla na nu jub bokk juboo di def lu jub te aw te ngir ma gën a jub ngir yëpp tey dolli ku doom yàlla na sëriñ Tuubaa ni ciix mu ca njariñ ni nu ko foox faw te xëy def leeni seex yu ñu tofal mbooloo ki koom gàcce gu jóg yàlla na nu mooy lu bon lu jóg yàlla na nu mooy ku bon ku jóg yàlla na nu mooy fawte mooy sunu barab yàlla bu kenn jëm fi nun ku dul ku nuy bégal si nun yàlla bu lenn jëm fi nun lu dul nga ne la mbir mu jub sëriñ bi yàlla na nu yàlla na nu may jëmamte yàlla na nu may xolante yàlla na nu may jàmmam jafaw ak gépp tab sëriñ bi yàlla na nu may jëmamte yàlla na nu may xolamte yàlla na nu may jàmmam jafaw ak gépp tab lu dul mbég yàlla na nu mooy lu dul yiw yàlla na nu mooy lu dul ngërëm yàlla na nu mooy te yàlla na nuy rawee ka xëpp yàlla na nu taqoo ki ngërëm faw te taqoo ki dërëm yu nuy wutee te ay ngërëm ak a segeeg mooy ak xarab yàlla na nu xam wërsëg wu rëy yàlla na nu xam barke bu rëy yàlla na nu xam doylu gu rëy ba dunu leble dunu leb gaa yi le man jébbulu naa bu wértekat bàyyiku naa bu wértekat soppiku naa naratumaa yor seeni mbir naratumaa yor sama mbir naratumaa yor seeni mbir naratumaa yor sama kër naratumaa yor seeni kër naratumaa yor sama jur naratumaa yor seeni jur xasoon na maa fa seeni jur ak sama jur joxe bu wér tey boole naa man seeni mbir ak sama mbir ak seeni kër ak sama kër boole bu wér jébbal sëriñ bu mag bi far jébul naa jébbale naa noppalu naa noppale naa te noppi naa noppilu naa di suma gaa kafa yu bor lébu ma man léb léwu ma te moo na kat lebluwuma waxuma it waxluwuma tudd samay ayib du ngor sëriñ bi man maa ngi ni le sama njaboot a ngi ni le te sunu mbir yaa ngi ni le nanga nu boole yor defar buntu tawat ubal nu ko faw ba dootul ubbiku buntu ngërëm ubbil nu ko faw ba dootul ubbu far ubal nu wunti perte yi ubbil nu wunti tono yi ubbil nu wunti cant yi ngir caabi yëpp yaa ko yor yiwu nu raw nanu ko jot waaju nu raw nanu ko jot ba far ko jiitu bu rafet te bu nu lëf mbaa kenn lor te bu nu aw yiw rawati te bu nu kenn jotati mukk ka dox di séenati sarax nu barkeb mépp ngir dolli nu doo jeele dara moo tax ma laajati dara nde duma laajati dara kon mukk